Petit Mbagnick dafa nekkoon jeune bi nga xamante ni amaana nekk na jeune bu bu bu bu lëj bu lëjoon sax laay wax ci li mu dugg bari na et li mu defit bari na waaye yëfi xale la et boo nekkee jeune lu nekk rek da nga yaakaar ni war naa cee laal mais sunu borom tey dogal na ni xiir ñu ci musique musique bi ñuy def nag biñ ci nekkee ba léegi ñu ngi ciy sant yàlla amul dara lu woykat di def te ñu tële ko. du fu ne way nañ fa du ay mbapate ki simbu parce que loolu yaa yaakaar naa ni sax booy na ci nopp yi mais mën nañu woy bay woy ci beneen facette boo xamante ni amaana am na woykat yoo xamante ni duñ ci woy mais nag lépp sant yàlla la suñu borom moo ni woon lii dama koy def ci jëmmi Petit Mbagnick du don du du du loo xamante ni dama kaa jëlee suma maam wala dama ko jëlee suma suma yaay booy mi ngi nii toog maa ngi koy nuyu de passage di nuyu ñu mu àndal ñëpp suma papa mu ngi xalpulaar la suma yaay la comme la même chose waaw ma juddu nekk bete bete kon am naa yaakaar ni lii ma doon don la bi nga xamante ni suñu borom moo ko def ci man ma koy sant yàlla bu baax a baax mais petit ci ci gàttal daal ci li mu jaar bari na trop waaw ci résumé. ndax ah yaakaar naa ni kuy ragal du ànd ak ñiy toog kuy ragal du ànd ak jëmm yi nii toog ndax xam naa ni ñoom duñu ay ragal bon man nag li may wax tout le temps moom laay ko waxaat tey liggéey lu bari wax lu néew. te su fekkee ne liggéey képp dalaa ñor nga nekk ci liggéey dootoo am jotu wax jotu liggéey rek ngay am comme yàlla dogal na ni li nekk suñu bopp dafa bari dañuy liggéey te wàññi wax ji mais xam nañ ni lépp loo xamante ni fit moo koy maye kon petit incha allah rabin day indi immeuble daal di koy tabax biir film fi mu juddoo te musique moo koy may ci kàttanu yàlla. sama dernière yi ma. Mm-hmm. waaw thème yi ma mm-hmm. Mm-hmm. bon thème yi ma defagum tem bi ñu njëkk def moo nekk trahison bi beneen bi ñu njëkkaat def bi ci topp moo nekk wengal gaal gi bi war a génn vidéo bi war a génn lundi incha allah rabin boobu ma nekk yaay suma xarit su xol am na xarit am na bi nga xamante ni tamit joobee naa ci suma yaay booy mi nga xamante ne nii macha allah lépp moom la ndax tamit wax dama ni juddu gu rey ndey ak baay waaye fulaak fayda borom. te tey bu ma demee bañ naan diw rek maa ko koy sante bu baax a baax moom it bokk na ci am na morceau boo xamante ni def nañ ko ci spécial am na bi nga xamante ni tamit tagg nañ ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ndax it moom fa la yoon wi nekk bon projet yi bari na te incha allah rabi li Petit war a wax yëpp xajut ci gaal waaw. Petit. Euh, musique yaatu na. Mm-hmm. surtout rawatina Sénégal. Mm-hmm. kan koo bon artiste Sénégal ñëpp laay déglu ñëpp laay consommé. franchement kenn ku man lu neex lu nekk dama koy déglu xale bu ma déggoon tey nit commencé na way tey sax damay jël morceau bi déglu ndax du ñàkk peut-être mën naa ci am dara loo xamante ni dina ma jëriñ comme danoo nekk ndaw nekk di jàng te mënuñu fële ko ñuy déglu ñëpp ndax loolu noonu mooy tax suñu xam-xam yokku ba tax na ñëpp la ñuy déglu mais pour idol suma papa bi ma jur mooy suma idole waaye musiciens yi yëpp laay déglu te ñëpp laa bëgg ñëpp laa fan ndax tamit ay ndaanaani waykat ñoo fi nekk di def lu rafet macha allah ma tàmbalee ko ci géejawaay bi nga xam fii laa juddoo bépp artiste bu nekk géejawaay petit da lay déglu comme c'est pas possible ndax tamit ñoom ñoo ñu jiitu ci néeg bi ki la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la mën a wan fi ngay toog di gërëm ñëpp ñëpp nag su ma limee jum mais bépp artiste bu nekk géejawaay maa ngi lay fekk fi nga toog jox la loxo mais bu dee idole ma jur maa ngi koy nuyu de moom mooy sama idole bon man li ma jàpp ni moo ma war a mën a jëriñ ëllëg loolu man maa koy liggéey du boostage lay doon du leneen ak leneen tey jii même bu fekkee ni dañ laa booster sax nga dem ba yeggu ci benn niveau bi su fekkee ni sa talent fekk nekku fa da ngay wàccaat ci suuf su boobaa nga dégg dañ kaa liggéey ak li ak lii ak laa fekk alors que mën na bayee demee noonu kon li jiitu ci petit comme yàlla dogal na ni jeune la dafa war a liggéey bañ a yàqamti dara def pas par te ñu ngi ci lool loolu la ñu suñu grand xaarim di conseillé loolu lañu ñu suñu grand ngañ demba di conseillé loolu la ñu maas boogaa di conseillé loolu lañu ñu képp ku nekk géejawaay di suñu kilifa di conseillé liggéeyal te bay a topp ci ginnaaw kenn mais képp ku fi nekk ci géejawaay wala nga nekk en dehors géejawaay di artiste am nga ak am di jaamu petit te xaritam nga bu ngeen waree gisee da ngeen di gisee su ngeen waree demalante da ngeen demalante petit benn Hmm. wax dëgg rek moo neex yàlla waaye petit xam naa ni sax su woyee nii moo ko dàqal fuuf mu woy ordinateur képp ku xam petit képp ku xam petit su petit woyee képp ku xam su petit woyee danaan petit li ngay woy nii moo ma dàqal téeméeri junni yoon ordinateur yaa ngi may mais nag yàlla dafa dogal tey jotaay bi du du du du caagi ni koy petit ñëw pour wane li li nekk ci moom xam nga yàlla dogal na ni petit li nekk ci moom amaana ñëpp xam nañ ko wala ñi ko xamul it bës bës ngi ñëw tuuti petit dina leen wan ni lii ak lii mi ngi ci man di nelaw. waaw daas fanaanal bee gën a wóor. Hmm. yee waaw daas fanaanal bee gën a wóor bon di jëlaat benn point boo xam moom laay souligner mooy di di jaale ñi nga xamante ne nii tey jii nii ñooy doomu fit mi yëpp di jaale waa baal yi yëpp sunu frère sunu xarit sunu lépp. muy papa Hercule tey tiset bii ma sol maa ngi ko ciy rendre hommage mu nekk jëmm ji nga xamante ne nii jën la woon comme ñun ñu bokk ak moom juddoondoo ci quartier bi lépp di rafet macha allah mu def fi liggéey bu rafet ba suñu borom jëlee ko fi ñu koy ñaanal yàlla fi mu jëm gënal ko fi mu jógee suuf oyof ci kawam ci barki yonent bu tedd bi bon di tamit di jaale suma famille membre de famille yëpp ki nga xamante nii suma maam la suma lépp muy kuma ñang te mu def ci man lu baree bari bari bari bari ndax bi may nekk ci moom boobu tout tànk laa woon bari na woon lii mu doon dégg yëpp mais teewul mu téem a téye bu rafet di ma jàppale tout le temps mi ngi nekk ci li nga xamante ni neex na ma ba tey suñu borom jëlee ko fi maa ngi koy ñaanal suñu borom tamit fu mu jëm gënal ko fu mu jógee. di nuyu suma maam xadisi mi nga xamante ni moo jur suma waajur ji suma waajur bu jigéen di ko ñaanal moom it suñu borom dëgëral taxawaay bi te wéral ko fi bàyyi ko fi ba mu fekkee njëriñu mañik yëpp lépp li nga xamante ni mu ngi ma koy ñaanal maa ngi ñaanal suñu borom dëgëral taxawaay bi yàlla na jàmm yàgg hmm. bon hmm. bon incha loolu tamit dama ciy wax lu gàtt rek mooy actuellement ni loolu moo lëmbee réew mi mooy single bi pëti war a génnee lundi ndax ndax singal bi mi ngi waaw xam nga Petit wax dëgg rek moo neex yàlla li muy nelaw bariwut moo tax xalaat daf kaa yomb temps bu mu war a toog di ko nelaw daf koy toog xalaat kon ay xalaati woy loolu nekkul li nga xamante ne lu ñu jafe la tey bu ma la xooloon sax dama lay woy facilement bon xalaat bi nag yaay suma xaritu xol la mooy ki nga xamante ne nii tey jii nii amaana man ak moom ñu ngi dund relation bu nice xam nga ma am ci tamit amour bu neex moo tax tey ma génneel ko morceau projet bi ñu ko tàmbalee ma ciy profité di ci gërëmaat suma promoteur muy maam amadin ndax mën naa ni projet boobu noonu vidéo bi rek képp ku gis teaser bi di nga xam ni lii du liggéeyu coomam ndax ah li ci dem bari na bon ñiy waxaat soppeek am di jàmm yépp nanu daw préparé te xaar projet petit boobu te xam ni incha allah rabin lundi bu génnee képp kuy soppee petit sa xol dina sedd